mbooloo ñu ngi leen nuyu baax te di leen ziar yéen ñëpp di leen balaax te di leen balaax di ñaan suñu borom boole ñu baal ñun ñëpp di ñaanal mu gën a ak mbooleem njabootu Serigne Touba gi yëpp di ko ñaanal Serigne Cheikh Jëm Fall di leen ziar bu baax di kàddu yi fii sëñ Assane jël macha allah di ziar jawriñ jotaay bi muy sëñ John ak Baye Diop ak sëñ mbamba ak ñoom sëñ Bamba ak mboolem waa daar ji yëpp rek buñ limee duñ matal. di jaar baax ñi ma àndal muy sëñ xaas ak sëñ mut sey ak sëñ asan ci turu fédération bi yëpp rek ñëw fi rek ngir wàcc ay màggal gi ak tamit ni ñu ko daan defee chaque année ak soñee rek kon ñu waxtaan ci li nga xam ne moo ñu fi indi rek ñu waxtaan ci xel ku ne xam ne ne màggal gi jub na boobu ba léegi ñi ngi jàng alxuraan ñi ngi jàng xasida waaye kon ne xam ne ne addiye moom génnagul te màggal gi coow li muy bari bari addiye moo koy moo koy jagal kon lu waaye di mën a wax rek booy ñëw del àndaale addee ji daan dajale ko ñu ngi leen ci soññ bu baax di profité rek di soññ waale mboolem ku nekk ci dëkk bi rek mais nag di ko adressé waa Maroon gi nga xam ne moom lañ fekk si tey ñu fonkaat daayira yu baax ndax tey Maroon fii dañoo am loo xam ne yaakaar naa booy xool ci dëkk bi bariwul ñu ko am kon nag yaakaar liggéey bi kenn waru leen cee jiitu ndax booy xool sëñ Jonn mii ko jiite yaakaar naa ne. moo jiite territorie fédération bi sëñ Bamba mii mooy vice président fédération bi sëñ Bamba Joon mi yaakaar naa mooy fi mooy mooy moo jiite administration bi sëñ Moustapha mii ci commissaire au compte la bokk kon yéen jàll yaakaar naa ne fédération bi ku ci jàmbaar yéen yéen ci war a jiitu ñun waa dëkk bi mu wàccoonu na waa Marul li des nag ci yéen la xaw ma nag nu ngeen koy waxtaan seen biir gaa jàmbaar ngeen waaye war ngeen mën a gën a yokk seen dox seen seen tànk war naa mën a gën a gaaw muy ci addiye ji ñuy am ci weer yi di defa 2000 yi joxe ci kër sañ Tuubaa gi te yaakaar naa ñi ma gis fii am nañ ñëw kenn ku bu nekk bu joxoon 50 peesu mu mat muy ci addiye kër Sëñ Tuubaa gi muy ci màggal gi ñu jëm muy ci leneen lu fi taxaw yaakaar naa fédération bi pàcc yi ci mënoon am mënoo daayira am mënoo lim daayira bu ko am ci dëkk bi kon nag bu doxul rek bu bu desee rek kon yéen ñi nga xam ne yéen topp ci ginnaaw ñi yéen leen war a gën a sagal ndax bu ñu toogee ci bassin yi fa ñuy waxtaane seen kaw rek la ñuy dal kon moroon li fi nekk yaakaar naa bu ñu doon teew di joxe addiya kenn ku ne cinquante peso war na noo mën a yóbbu liggéey fu rek war na noo mën a yóbbu liggéey Sëñ Tuubaa bi bi kon nag nañ leen waxante dëgg tan góorgóor jàpp liggéey bi ndax kenn deful ko kenn Sëñ Tuubaa rek nga koy defal ñi leen di soññ ak di leen woo defuñu ko ci seen poos lu baax nag ko liggéey sëñ Tuubaa nag moom ku la ciy woo ak di la ci soññ da laa bëgg lu baax ndax moment bi ñu koy def di jàng alxuraan di jàng xasida di sikkirulaay mënoo def lu ko gën boo neewoon sa biir néeg di naafil ba bët set ak a mënoo def ndax jëfi mbooloo la te jataayu yaakaar naa jataay bo boo boo bi ñu koy def jataay boo ko wecceel mën naa koo tudde majaalis saxaawa man man man maam ci loolu bu ñuy dajeel fii ngir jëm sëñ Tuubaa di fi jàng alxuraan di fi jàng xasida moment bi ñu koy def leneen loo fa def man jàpp naa ne boo ko dugalee ci biir daayira bi majalis saxaawa laa koy tudde kon nañ leen jàppaat daayira bi te fonkaat daayira bi xam ne moroon mbooloo moo fi nekk te ñii wax dëgg yàlla duma leen jam ndax bis bu nekk guddeeg bëccëg ba deux heures du matin ñooy daje kon yéen ñi topp seen ginnaaw gën leen a góor jàppaat liggéey bi seen bopp ngeen koy defar waaw lépp lu waay def ci lu baax nag rawatina liggéey bi Sëñ Tuubaa ba mu koy def nga koy ñëwee boo liggéey yaa ngi toog di ko ma seetaan ma ñeetaan rek rawatina nag bis bii nu jëm bis bii nu jëm moom ku nekk da cee war a jaayante bis bu ne nag mën nga cee yërëm nit ci soññe waaye bis bi kenn waru cee yërëm nit képp ku ci yërëm nit yaa ngi koy tardeel te yéene woo ko jàmm kon nag nañ ci gën a góorgóorlu di jaayante àdd yi képp ku nekk ci yéen jàpp na saw sas bu manqué màggal gi li ko sooxe ci nga bokk te ku la ci raw bu déwénee moo lay gën a raw bu defee lam defoon te fii kenn bëggut ku la raw ci lu baax rawatina liggéey sëñ Tuubaa kon nan gore fii ñëw tey Argentine mu xool loolu sori loolu suñ borom suuf suñ bind rek ku mu fa wàcce rek dafa sàkk pour que jaamu ko moo ne am na ñu fi nekk lu leen ñu am ko te nangu nanguwoon koo jàmm kon ñun tey bu ñëwee amum xel ak topp suñuy culture topp suñu diine mën koo jàmm nan ko sante ko sedd gi ndax moo dagg suñu jéng yi man mën a ñëw fii kon ne leen santaat sëñ Tuubaa te sant gi munta passé màggal gii nu jëm te nun xam ne liggéey sañ Tuubaa képp koo xam ne buñ soññee sa dëñ rëcc wala nga naan dafa soof da am da koo nàngam wala lii laa yaa ngi nax sa bopp nga xam na liggéey bi jeexagul ndax màggal bu passé la altan la ñu commencé kër sëñ Tuubaa gi te la ci des yaakaar naa moo gën a metti kon nañ leen góorgóor ci liggéey sëñ Tuubaa bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu